aleykum wa rahmatullahi taala wa jullit yi ñu ngi leen di nuyu fu ab jullit mën a ne bokki lislaam yépp ñu ngi leen di nuyu bokk yi teew ci jataay bi yépp ñu ngi leen nuyu ci turu alxalifatul am li taifatil muridiya di ko jot lil ndokkeel gum ndokkeel jullit yépp ñi mbokkal lislaam ji ñépp ñi mbokkal bis bi ñépp ak fu ñu mën a ne ci xaalam bi mu ngi leen di ndokkeel di feddali bokk gi di fokk fekk feddali li ñu yàlla boole innamal mu'minuuna ixwatun julli yëpp yàlla dañoo lëkki ni ñun ñëpp ay bokk lañ fa aslihoo bayna axawaykum kon nag waxtu wu leen den leen defar seen diggante mi ngi maa ngi leen di nuyu ci turam fas yéene waxtaan ci bis bi ak solos bis bi fas yéene leen cee waxtaanal tuuti nag ci li cosaan bis bi ak liñ ci mën a jànge tam tam amal lu njëriñ danañ ko gàttal nag ndax ci tabaski lañ ne waaye li nga xam ne moom lañ mën a jàng ci bis bi mooy Ibrahima dafa doon koo xam ne xaritu bi yàlla bis doon ñaan nag yàlla may ko doom ñu di ko fexeel waaye mu ne maa ngi dem ci yàlla fa araado bii kaydan fa jannahum lafsolin wa qaala inni zahibun ila rabbi sayhdin maa ngi dem ci yàlla yàlla dama dana ma gindi ba mu demee mu ne ko rabbi habli min as-salihin may ma may ma yàlla nag fa basharnaahu bi gulaamin halim ñu daal koy may ab fere bu bu lewet bu bu baax moom it mu daal wax moom nag na ko man damaa gént xaala yaa bunayya inni araa fil manaami anni adba'uka fanzur maa tara mu ne ko doom bi fekk doom da ko bëggoon lool mu ñaan yàlla mu may ko ko mu gént ni da ko war a rey bi mu ñaanee bi mu géntee nag wax ko doon doom ji ne ko xaala yaa abati fal maa tuumaru bàyyi defal liñ la digal sa tajiduni insha allahu min assabirin da nga ma fekk ma bokk ci ñi dàq muñ ñoom ñaar ñëpp ku ne am dabtu nafs mooy yeew sa bakkan ba la nga war a def rek ngay def la nga wërti def doo ko def moo tax waxtaani tey ma ko def ci daptu nafsi rek tënk ko ni ñuy def ba ni ko lis ni ko borom xam-xam yi waxe ma tënkal leen ci dara rek ci ni ni lislaam bëgge daptu nafsi doom ji saalitut di baay bi saalitut te te lañ bëggoon yàlla defal na leen ba ñoom ñëpp bañ nangolee yàlla ndax yàlla day seet rek ba xam sa kattan gëm toll fa lama aslama wa tallahu lil jibini wa naadina ya ibrahimu qad saddaqta ruya inna kadalika najzi al muhsinin inna hada la huwa al bala'u fa naa ko bi dibhin adim yàlla yebal jibril jox ko ab gàtt bu mag ne ko jote ko loolu moo indi solo solo dattu nafsi googu nga xam ne nag day loo xam ne borom xam ne dañ ci bind lu bari dattu si mooy takk sa bakkan takk sa bakkan ba du buur noonu la ko mën a firee ci wolof takk sa bakkan ba du buur lu màmm yeewu sa bopp ba du màmm du buur mooy dattu nafsi wala nga ne mooy mer muus li sëñ Abdou Khadre daa wax naan lu jafe la mer muus nga xam ne lii la naqari kenn du ko xam ci yow dabtul si moom la ñuy wax léegi rek rythme mooy mooy nga yeew nga yeew sa bopp ba doo doo wax loo wërta wax doo def loo wërta def lislaam da fonk lool gis nga Ibrahima mook mook doom ji mook Ismaahila ku ci ne tolloon nga foo xam ne lu ne mën naa xew sa diggante ak yàlla waaye dangaa takk sa bakkan ba dara yëngu dott sa bak bakkan ba munta buur munta màmm loolu lañ loolu lañ koy firee ci wala bu ko defee nag boroom xam-xam yi ñoo wax ne dabtu nafsi mooy lii jumtukaay bi nga xiyaas sa ngëm ci yàlla fu mu daa benn baat boo xam ne arab yi arab yi ak euh, nasaraan yi ñoo ko bokk thermomètre thermomètre bu ngëm mooy mooy mooy mooy mooy daptu nit dàpp sa bakkan li tax lislaam bindikati lislaam yëpp dañ koy bind wax li ci yónent ndax dafa doon sëñ bi bind ci lu bari ndax dabtul nafsi ki njëkk a rey doom aadama ci ak kaw suuf muy xaabil muy haabil eh, muy xaabil tooñ dem tooñ haabil ñaari doomi aadama yooyu ci dabtul ñàkk a def dabtul nafsi moo ko def واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وسالك جزاء الظالمين alxuraan dafa nekk li ne ki njëkk rey nit muy benn doomu ak ñaari doomi aadama yi dañ doon jàmm yàlla ñu nangoo kenn koo booy jaamu yàlla daa am luy doy teg fee bu dara ñëwee lekk ko ñu ne si yàlla nangul la la bu bu loola dara ñëwee lekk ko lu jógee ci asamaan si ñëw jël ko bu fekkee jël ko kenn nag bañ bañ bañ kii te nangul kii te mer ne ne ne mbokk mi dana la rey ah, mbokk mi ne ah man ne boo tàllalee sa loxo ngir rey ma it man duma la rey ndax te ragal naa ne boo ko defee bàkkaar bi yëpp dana wàcc sa kaw nga bokk ci waa waaye bakkan ñàkk ñàkk mën a téye bakkanam fa tawaxat la woo naf sa naf si woo la ak yi xatal bakkanam ginnaaw a bakkan daal rey ko daal di bokk bokk ñe moo tax kenn du yéem ak borom xam-xam dañuy wax ne bu ñu yéem ñaawalu ki du ki ki ki nit nit ku am maanaa ñaawal bi ñu koy ñi nit di tooñ kenn ko yëm waaye yaa ña li ñuy yëm mooy tooñ bi ñu koy tooñ mu ne mu am doy ci misaal ak ah, day turan li ci man nu ko am ne xëy na sama dama bu ko defee nag ngeen xam ne loolu ku ko bëgg a am daptu na si ko bëgg am foo koy tàmbali mooy yar yar ndax yonent bi dañoo jàngal ne dañoo jàngal ne wa attahi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa xaaliqi n-naasi bi xuluqin lu ñu la defal ci lu bon danaa ko gën a fiwaat ci lu ñu la defal ci lu bon rek yow fayal lu baax ndax kon da koy faral loo gis ci lu bon rek ay fa faree ko lu baax te di te di nit ñi ngay jikko ñoom jikko ji rafet rawaa ba technici yi wa daara yi boo ko defee nag ngeen xam ne sëñ Tuubaa nag loolu lu ci gën a ngir mu ne rek jàngale la man jàng mu ne yar boobu nag moo tax man wóolu nit bokk na ci teggin tarbiyatu wal awlaada li kay naa law ba'da rashada yar gone yi moo jiitu ci boo bëggee fekk sabkan boobu ñuy wax boobu ñuy jàng qultu wa minhu nutfu bi staxiiri wa misluhu tamkiinu lil kabiir bokk na ci mag mu ne mag gone boo gis dee ko yërëm waaye gone gi gone boo gis ne màggal mag wa jaxlu mislika ka nafsika istiwaa wa xayru si mi mas faxaa ma tam xawaa koo gis def ko di sa la neen loo gis baax rek ne ca nga xam ne ci ci yar la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana soññi ay saabaam lool ci daptu nas am na boo xam ne daa gis ku ñu asajul qays ne ko inna fiika xuslatayni yuhibbuhuma allahu alxilma wal anam asajul qays gis naa ci yow jikko yu yoo xam ne yàlla bëgg na leen lool mooy neex bi rek ak leer rawaahu muslim wa tarmisi ibnu maaja sallallahu alayhi wa sallam danaa yar waa këram ci leer ba ba asbatu ñëwee nga mën a xam fi ngay jaar nga xam ne jàng lislaam dañ cee jàngale dañ cee jàngale ne faka faka maa taxlumu taxlumu naa soxla noo leete rek nit ñi noonu la ñuy leete ci noo neexee rek wa yahdillaahu quluubahum laka te bu waa yàlla di foqal yëpp ñu wut si waaye wa kamaa taxtaju laa taraa min quluubi boo boo boo naqaree da ngeen boo jëflante ku ne naqaree da laa yow moom loolu la lislaam jàng loolu. yàlla bi muy jàngal yonent bi da ko njëkk wax ne walaw kunta fazzan galizal qalbi lan faddu bi boo doonoon ku dëgër ku ñagas ku ku dëgëru kon mbooloo mi la boole la ko wax kon da ko aaye da ko aaye loolu kon ana ana mën a def ba daptu na suñu man ko am mooy yii may bëgg a wax maarifatu ma aalaati umuri mbir mu ne fam nar a mujj da nga koy teel a xam moo la mën a dimbali ci ngay tax ngay ngay ngay ngay nga am ndax tund ndax inna taxarruf ala xawaaxibi umuri bi itqaani xaamidatil masaani wal mafaasidi min axsami asbaabi alladi tamnau min atasarrufaati alxaatiya mbir yi boo xamee fa muy mujj xam la ca mën a yàqoo ak la ca mën a defaroo bokk na ci sabab yi tax doo juum te loolu alxuraan dañu ko jàngal xaaxidatu mooy li ñu alxuraan jàngal mooy yàlla daa wax yonent bi nag wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan lahum bi ñii di ñii di jaamu xëy seen yàlla yooyu bu bu leen leen ŋàññi ndax bu leen leen ŋàññee dañuy fayoo ci ŋàññi ma man yàlla kon gis nga xalaat bi muy mbir li li ci yàlla jàngale yéen ñiy jaamu xel xel ku ne xam ne li ñuy bokk mu ne bu leen leen ŋàññi ndax bu leen leen ŋàññi dañuy tontu te liñ leen tontu man yàlla la ñuy ŋàññi nga bañ nag loola am tax lii nga waroon ko def nga bañ ko weex loolu loolu noonu la alxuraan jàngale ndax fiir ci suñ diine mën naa tax nga gis lu ñu def lu naqari yàlla nga jëfandiku ca loo xam ne fokk xam nga sëñ Tuubaa daan wala su muf di yan li sëriñ li ngay li aaye bu fekkee nar jur weneen ay da ngay seetaat na moo jaar ba ba li nga bëgg am ay woo dam lé wala li <coughs> wala waaw mu la wax ci sa muf ak bara kon nag léegi loolu ci boppam moom lañ war a jàng ci moo moo la ci njëkk a dimbale ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moom dafa wax ne innamal ilmu bi taallumi wala xilmu bi taallumi loolu borom xam-xam yoo xam dañ ne xam-xam yaa ngi koy amee ci jàng waaye neex dara yaa ngi koy amee ci jiim jiim ko jiima neex dara loolu loolu la xikam yoo xam sallallahu alayhi wa sallam nag moo ci jàng ndax am na bis boo xam ne dafa wax ne kuntu amsi maa rasulillahi anas moo ko nettali anas moo ne am na bis kuntu am si maa rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi burdu najrani ghalidul haashin fa adrako arabiyun fa jabasahu jabsatan shadida hatta raaytu safa aw safa aw safhata bunuqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qad astarat biha haasiyatul burdi min siddati jasbihi fa qaala ya muhammad aatini min maalillah allati indaka faltafata ilayhi fa dahika suma amara lahu bi ataa yéen anas ne damaa na ngeen bu ñu doxantu nit jekki-jekki rek koñe koñe dëgër bay seet naa baatu mbub mi xaw na koo xeral yi ba mu ba mu xaw mel ne ko alali yàlla ji nga jox jox ma ci laaw yeneen bi mu daal di reer mais daal di yor jox ci ci yor magasin bi ko jox ko te dal boobu takk ba kanam boobu am na boo Sayd ibnu Saxnata moo ko nekk bi jaa Sayd ibnu Saam Saxnata ilaa rasuulillaahi yatlubuhu daynan lahu fa axada bi majaamihi xamiisihi wa ridaa'ihi wa jazabahu wa axlada lahu qawla wa nazara ila nabii bi wajhin galiid wa qaala yaa Muhammad alaa taxdiini xaqay innakum yaa banii abdil muttalib qawmun mu'talun wa shaddada lahu fi l qawli fa nasara ilayhi Umar وينعم تدوران في رأسه كالفلك المستدير ثم قال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أصنع وتفعل ما أرى هو الذي بعثه بالحق لولا ما تهاصر لومه لضربت بالسيف رأسك ورسول الله ينصر إلى عمر في سكون وتبدد وتبسم ثم قال أنا ثم قال أنا وهو يا عمر كنا أهوج إلى غير هذا منك يا عمر an ta'murani bi husni al-adaa'i wa ta'murahu bi husni al-taqaadi ishab bihi yaa Umar faqdihi haqqahu wasidhu isriina saa'an min tamrin fa kaana haadha sababan li islaamihi fa qaala ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah yonent bi ne Sayd ibn Fana da koo dab di ko fayu bor bu mu ko amoon te boobu du jullit moom ne ko fay ma sama bor bi daal di koy poñe mooy xëcc ko wax ko wax bi ñagas ne ko yéen giiru waa kër Abdou Moutalib da ngeen di téye bori jàmbur yi rek du ngeen fay kenn tànge daal di wax wax bu ñagas Omar daal di xool bët yi mel ne bukki ko ndax ndax tàngoor Omar daal ne yow yàlla bi lu tax ngay wax yonent bi nga wax lu tax ko jëf ñu naa ne bu ma ragalutoon ku ma yedd danaa dagg sa bopp yeneen bi di xool di ree yonent bi dal muuñ ree ne teg daal ne Omar ah maa ngi moom teg ku ci ne soxla woon na nga dimbalee ko lu dul lii nga wax man de damaa bëggoon nga digal ma ne ma boo amatee bor dee ko fay fay mu moom mii ne ko boo buñ la amalatee bor dee ko fay fay mu rafet Omar demal nga fayal ma ko bor bi ma ko amee léegi te na ko ci dolli ñaar fukki saa ci tàndarma ñaar fukki saa ci tàndarma mooy juróom fukki kilo juróom fukki kilo yi tàndarma ci gëdd gi nga gëdd nang ma ko ci dolli loolu na si bii laa leen ni solo sago soosu yonent bi am ak ni mu jënd yëpp waaye ca la doxe far jënd daal di am na ku ñuy wax Ahnaf koo xam ne daa doon koo xam ne dañ isaa xadiba la woo miatu alfin laa yasaloonahu moo laa yasaloonahu fii maa xadiba daa doon ndax duñ ko laaj lu tax nga mel waaye moom kenn defaree ba mer Ahnaf la tuddoon sangu moo doon sangu aw nitam ñu ne ko nag waaw yow Ahnaf koo xam loo leer mi man taxallamtal xilma xaala taxallamtu min xaysin ni xaasim xaasim xaysin ni xaasim daal moom ci laa jàngee neex dërëm waaw ñu ne ko lu ñu defoon mu ne xaysu kaana yawman jaalisan maa asaabi fi majlisihi fa jaawo lahu bi rajulin muqayyadin يرصف بالحديد وقالوا له هذا ابن أخيك قتل ابنك فالتفت إلى ابن أخيه وقال يا ابن أخي أقتلت ابن عمك ابن عمك وأسرت إلى رحيمك وأهملت نفسك ثم التفت إلى ابنه وقال قم أبلغ صلاة ابن عمك وأدي الدية إلى أمك وجهز أخاك ثم آذنا بعد ذلك ما استمر في مجلس mu ne man de li may def ci kilaa bi jàngee xay sum nu xaasim ndax dafa dañoo toog bis moom yëpp wër ko ay gàngooram yëpp wër ko ñu jéng nit indi ne ko fekk ko ci ko kii de reyal sa doom mu ne teg dal dal fekk doomam kooku kooku ko moo di euh, ko rey na mu ne ko mu daal jàkkaarloo ko ne waaye yow lu tax ngay lu tax lu sa doomi bàyyi ñaawal nga sa bopp tooñ nga sa bopp waaye anas daal di jàkkaarloo doom ji nga ne moom la ci bokkal rey mu ne acca gaawal ci ñu jéngi sa nga xam ne moo ko ci war demal wut ko jox ko sa yaay te te te sa mbokk ma ngeen waajal ko bu ñu noppee ngeen fekk ni bi ñuy waxtaanee ñu yëgal ñu seetal daal boobu am ndax tur na suñu am na ku ñu wax Maymuna mu Muhraan dafa doonoon koo xam ne dafa toog moo ki nitam mu di leen berndeel bi mu ba ñëpp wër ab jibéeram ab jibéeram ñëw nag yanu ñi supp bi mu leen defal fa jaati jaariyatu tahmilu maraqatan xaara li tuqaddimaha lahum fa xafarat wa saxatat al maraqat ala Maymuuna far na mu fakkastalu supp baag yépp daanu bi mu leen naroon a beral ah, mu taali mera mera fa xadiba xadaban sadiidan wa kaada an yuaaqiba bëgg na ko dugal waaye jibéer bi jàng na alquran jibéer bi nag ah xas xanaa jàngoli eh, yàlla wax ci alquran wal kaadimina al xayr xanaa gisoo ñooñu yàlla wax leen nii leen yàlla tàggee xanaa duñ koo jàng mu ne man mu ne wan naa sama mer mu ne ko wal xaafiina naa naasi moo ci tege ni ñuy jégal mu ne ko jégal naa la mu ne ko wallaahu si muhsiniina ci tege ni yàlla bëgg na kuy rafetal bi mu ne ko goreel naa la mer ma noonu la noonu la soppi ko kon nag bokk na li nga xam ne moo la mën a dimbali ci ci ci loolu mooy loolu mu njëkk a bi ci topp mooy ihraadu anil jaahiliin mooy koo gis ko xam bu waxee wan ko gannaaw mooy deuxième mooy mooy mooy mooy mooy bi nga xam ne moo moo ko ñetteel lii mooy bi ko ñaareel bi ma njëkk wax mooy lii la ciy musal boo xam mbir mi fi mu mujj la bi ci topp na mooy iraadu ani jaahiliya maanaam li dama la wax rek yi ngay ginnaaw ki ngay wax xamul rek bu ko toll fasil afwa waamur bil urfi wa'rid anil jaahil jëfandikoo laa yow bokk na ci lii la dimbali ndax euh, alquran am na ci bi xaata bu mu jaahiloona xaaru salaam ñi nga xam ne ñu réer bu ñu waxee ak ñoom ñu ne jàmm jàmm rek da bu dalee ci seen kaw it leen tontu salaam salaam ñooñu alxuraan da leen tagg ci sóoratul Furqaan kon ci sëñ bi daal ñu jàngal ci nax bi ne wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama xaalal adib wala na nga muñ buñ la ŋàññee te bul tontu na nga mel ne la borom xam-xam moom waxoon ne wala xat amuru ala alladina yasubuni wa axifu suma aqulu laa yëg léeg-léeg ma romb yamaay mu di ma ŋàññi waaye dama koy romb rek ne ndax sëñ Tuubaa dafa jàngalewaat ne xamoo ne naqari dara nee na amaa xam wa kasratul xadab wa hiddatun wa dayxu sadrin bi taxam fa hiya min axlaaqi seytaani ala an xaasara min xulaay dawaawu ilmun bi an laa fi'la xaqiqatan ilaa li rabbin jalla jombul taral hiddatu mooy taral wa kasratu mooy siddatu moo siddatu ñoo bokk am biri wa ak bëri looy mel taral mooy naqari dara ak bëri looy jombul ak sab dënn xat sëñ Tuubaa nee ñu yëpp bu la dalee da ngay xam ne jikkoy saytaane la ngay ñaan yàlla tàqale laa la koy saafara nag mooy nga xam ne mbindeef yi ñuy jëfante ak yow lim la def defu ko yàllaa ko jaarale ci moom rek waaye bu moom moo jëf boo ko jàppee noonu la nga ci waroon a mer doo ko demee sëñ Tuubaa nee garab bi mooy jàppal ne lii yàllaa ko bëggoon a def rek jaarale ko ci kii waaye yëbiwu ma noonu ba dama def bu ko dee rek defee nag gis nga alxuraan yi ne tagg na ñi nga xam ne wala si ne laa yashhaduuna suura bi saamaro bi lafi marro kiraaman ba tey suura alxuraan bu ñu rombee bu ñu rombee caaxaan dañuy rom-rom róorul kiraam rek ni ci am ku leen ci soowa ku leen dalee duñ la toll kon ihraadu ahli jaahiliya bokk na ci liy dimbali ci daptu nas ba ca topp mooy def ko sayyiatil xasana maanaam lu bon lu ñu la def nga fayee ko lu baax wala tastawil xasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsanu fa iza llati baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamiim waaye nag maa yulaqaaha illa llazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu 'azim nee na lu bon lo dee ko jañee lu baax rek bu kee dalaa bañ dee ko defal lu baax rek da ngay mujj kala noonu woon mooy mujj doon sam xarit waaye alxuraan nee na nag lu ku mën a muñ te amul cër moo ko mën a def yàlla na ci yàlla boole ndax loolu moom bu ko dee yonent bi nee na ittaqillaa haysu kunta ba tey moom la firi wa abbahi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa xaaliqi nnaasi bi xuluqin hasan tirmisi wa daarimi yonent bi nee na del ragal yàlla foo lu bon lu ne dee ko dee ko faree lu baax tey ni ngay jikkoon ni ngay jëflanteeg nit ñi di leen wan jikko ju rafet ba ca topp mooy nangoo diisoo dana ndax diisoo yàlla da koo bëgg lool moo tax mu digal ko yónnee bi di yonent bi de wa saawirhum fi amri da ngay diisoo ñoom ci mbir yi ida balaxa rayu mashurata fastain bi rayi nasihin aw masurati xaasini am na waykat bi ko wax waa dee diisoo rek deel diisoo xalaatu ku laabir wala nga diisoo ku takk wa saabir isaa saawarta kulla muhassabin labibin aqaa hasbin li tursada fi amri boo dee diisoo diisoo la ku yaru xel ku takku jéemu tege ci yoon bu boobaa diisoo boobu dana tax nga mën a dabtu nas bi ñu lay digal da nga ko mën dana la ci dimbali ndax boo diisoo léeg nga gis jàppe loolu di wax nee na mën na laa dal afa man suy na lahu suu amalihi fara ahu hasana da nga gis koo xam dañ laa raf dañ laa peintural lu kon loo loo loo war a jubli mu ñu la ko ma nga teg ko loo rafet te boo diisoo woon lañ la ca mën a wan lool ndax man ngaa gis faqad yakun ahaduna yaral xasana xataan wal xataa fekk boo diisoo nag daan ci mën a génn lekk ko ba ko juróomeel mooy sabu ak taqwa muñ boo muñee dara kenn du la mën a dara muñ tey bàyyi xel yàlla wa in tasbiroo wa tattaqu laa yadirkum kayduhum shay'an inna laa bimaa ya'maluuna muhiit ci sootu Ali Imran yàlla ko delluwaat wax ne wa in tasbiroo wa tattaqu da yonent bi sax la wax àlaa yow dafa ne wala tasmaxunna min allazina utul kitaaba min qablikum wa min allazina ashraku asan kasira waaye wa in tasbiroo wa tattaqu min salik min asr yonent bi lor ñu bari dañ la ko def ci yëfar yi nga nekkal ci arab yi ak yahuud yi ak nasaraan yi ñi nga xam ñoo woon waaye boo muñee sa ragal yàlla am nga dogg boo xam ne kenn mënu laa yàqal yàqal ci loolu la jaar ba dara kenn mësu ko waral boo ko defee daa ñoo mën a nekkal duñ la kon nag la ca topp mooy nga jiima xam sariha li mu wax ci ku mer ndax ñun ñëpp kat. ku ci ne mën ngaa mere sa sa doom mere sa soxna mere say bopp ndax fu ne la seytaane seet mer seytaane ji waaye bu boobaa dangaa war a ma a xam lislaam lu mu wax ci ku mer noo mën a def ba ba mucc ana lislaam lu mu wax ci yonent bi lu ñu jàngal ndax ku de mën ngaa mere fa kayfa yatfaru waahidu minna xadabahu fa masal isaa xadiba al waahidu minna ala zawjatihi mën ngaa mere sa a aw ala ibnihi wala sa sa sa soxna wala sa doom aw ala aqaaribihi aw asaar aw asaarul xadab wala am leen min umóori si sariya fa kay fa yesta bu asal xadab noo war a def def ba mere bi dañ loolu def lislaam jàngale na ko de la ci njëkk mooy al istihaasatu min asheytaani rajim foo mere yoroon sa kus naan a'uuzu billaahi min sheytaani a'uuzu billaahi min sheytaani rajim a'uuzu billaahi min sheytaani rajim a'uuzu billaahi min bu yàggee mere bi dana dañ ndax euh, Suleymaan mu surat nee na toog naa ci yonent bi kuntu jaalisan ma'a nabi wa rajulaani yastabaani fa ahaduhumaa ihmarra wajhu wa antafaxat awdaaju fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inni la a'lamu kalimatan law qaalaha dahaba anhu maa yajidu maa yajidu damaa toog ak yonent bi ñaar di fa xuloo ba kenn ki daanaka nenk tànn moom la war a moom la war a def nenk tànn mooy tegg lex yi tegg lex yi nga xongu coy naar bu meree noonu lay mel yonent bi ne xam naa baat boobu koo waxoon rek mer mi dañ ñu ne ko yonent bi mu doon mooy auzu billahi min shaytaan bu ko bu ko doon wax rek mer bii ko de dem dem de ana beneen bu yonent bi jàpp jàngale mooy noppi ak sukuut boo meree bul noppi bul wax lox loo wax rek mën ko rëcc isaa xarib iyyaka wal ko ñetteel mooy uxruj fi nga meree gaaw génn yonent bi nee na la fekkee nga jàppoo demal ci wanama dem jàpp wala nga sangu farata sangu te ngaay doon lii sangu bis ndax mer ci saytaane ci sawara la jóge boo ko sottee ndox ñaar day loolu la yonent bi jàngale moo tax sëñ Tuubaa jàngal ñu ne nee na usturil ayba mastataata bi sumtin dina fi sumti raaxatan li sumut ay bi dee ko suturaal ak sa ayib wa ak lépp ci noppi ndax le lépp neen nox laay la ci fi noppi waccali sumta in hayita jawaaban ba xawrin jawaaboo fi sum bu fekkee lott nga ci tontu nit bu loolu yow wax wax wax lu ko neex meer ci yàlla lañ bañ ko tontu nee na sëñ Tuubaa nee na bari na wax yoo xam ne tontu la mi ngi ci noppi boo noppee rek kooka day gërëm sëñ Tuba nee na wax nañ ne sëñ Tuba ba nekk ginnaaw ji de law kaanal wax nañ ci xikam ne law kaanal kalaamu fiddatan la kaana sukuutu sanam bu wax doon wurus bu wax doon xaalis noppi wurus la si yonent bi daal di wax ne isa xadiba ahadukum wa huwa qaayimun falyajlis fa in zahaba anul xadab wa illa falyaltaji rawaahu Abu Daawud ahmad yonent bi ne ku mer bu la fekkee taxaw toogal bu dañu nga tëdd Abu Daawud moo ko nekk yonent bi ko wax wér ba tey ñeent ba ko ba ko ba ko ba ko ba koy tëj ngaari mooy ñeenteel bi mooy mooy ñaan ñaan yaakaarloo yàlla di ko bët bu set nga di ko ñaan ni naqari deer ak mer déema ci dimbale ba bët bu set nga nga jàkkaarloo yàlla ni ko nang ma dimbale ñe may ma lii ani an adduhu laa tabaaraka wa taala an yarsuqani xilman xilman wa ilman wa yaqiinan wa sabaatan yàlla may mag leer ma neex deret may ma xam-xam yu yoxo may ma ak kóolu téef sama diggante ak yow téer ma samay baax yent yi bu xëyee war nga koy ñaan yàlla